Euh, média xibaar yi dañ koy door rek kàdduy euh, kilifa xalifu euh, Laayeen yi jëmee ci Ousmane sonk nee na ko réew mi dal ak jàmm la soxla kenn warul yee fitna ci mim réew message la ba nga xamante ni ci njiital Pastef la jaare waaye mboolem politiciens yi ci réew mi lay waxal daaka bu Medina Gounass ñi ngànk comité d'organisation bi ne kontaan nañu gannaaw nguur gi respecté na engagement yi mu jëloon daaka bi nag ci weeru avril gi ñu jëm lañu koy amal jaaykat yee ca marché ocas bu Touba tey la ñu leen a waroon a jëlee euh, tey la ñu leen fa waroon a jëlee waaye nag dàq nañu ko ba jëmi jamono Baye Fall yi ñoo war a jiite yooyee opération Euh, suuf sa yëngu ca turki sapor pompier yu Sénégal yi ñu yebaloon na ca Atay dëkk la ngir rek euh, secours yi tey ci ngoon la ñuy ñibbisi Sénégal dajale la lu toll ci juróom fukki million ci sunu koppar jëm ci ndimbal li ñeel ñi loru ci euh, séisme googa ca Turquie. tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaaru culture yi ana rocha yéen la ñuy jeexale dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. Abdou Thiam moo fare ci machine yi mbokk yi nuyu nañ leen rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média tàmbale ko kaddu yi euh, ki yore euh, kaddu yi xalifu laayeen yi démb ci bi muy dalal Ousmane Sonko mi fa demoon gannaaw appelu laayeen yi ñu doon amal ci fan yi nee na ko nag réew mi dal ak jàmm la soxla kenn warul yee fitna ci mim réew mu di message bu nga xamante ni Ousmane Sonko dégg na ko te moom tamit nee na ci loolee lay dox message la bu nga xamante ni ci njiital Pastef la jaaree ga waaye mboolem politiciens yi ci réew mi lay waxal Georges Déthié Diop. bokk na ci li gën a fës ci waxtaan wi moo di jàmm ci réew mi ak dal gi jëpp bëgg. porte parole wu xalif général des Layènes jëmale kaddu yooyu. ñi yëngu ci wàllum politique yëpp. acteurs yëpp. ku ne war mën a déglu sama waxtaan ndax jàmm. tey kenn ñaanul yàlla jiite réew moo xam ne fitna rek a am sago bi nga bëgg a jiite sax doo ko am kon li ñu war ñun en tant que nit diine te bu neexee ah alhamdulilah mais bu naqaree ñun ñooy dese njaboot toujours boo dégloo samay waxtaan dina ne ndakaaru de ñun ñoo war jiitu ci bëggal jàmm réew mi ndax ndakaaru bu doon tàkk depart de feu bi fii lay doon kon fii ñun li ñu bëgg mooy jàmm li tax sëriñ sonn mooy ñëpp la jaboote fenn fu ne am nga fa njaboot te lu metti la yow li ngay defaan foo toog li nga defaan rek ngay defaan amoo si loo ciy calculer Ousmane Sonko moom tontu ne bokk na gis-gis ak porte parole bu xalif général des Layènes mu yokk ci ne jàmm moo ko tax a jóg. gis nañu réew yoo xam ne amul lu ñu amul ci richesse lu mel ni Zaïre li mu am Sénégal amul un millionième bi sax ci richesse jama or leneen ak leneen waaye jàmm fa ñàkk moo tax loolu amu fa njëriñ ñu gis ko feneen ak feneen kon lu waaye am te amoo jàmm rek dafa mel ni amoo dara waaye jàmm nag lu ñuy dox la lu ñuy saxal la dañu ko séq yépp watkee def ay jéego loolu la ñu dégg ci waxtaan yi moo tax daal ñu ngi leen di ñaan ngeen jottali suñu nuyoo kilifa gu mag gi jottali ko ko waa kër gi yëpp wax leen ni dégg nañu it seen yóbbal dinañ ci góorgóorlu bu baax a baax may nañu ñu am ci cër te it ba bëri ñu ñu dégg di ñu topp di dalal seen xel ni ñun jàmm rek la ñu bëgg te kenn mënul génne benn preuve ni ñun mus nañoo jóg dox safaan wa mooy dem dal ci nit wala def naka sudul noonu xanaa kay léeg-léeg ñu dal su suñu kaw boobu métti ñu ne nag jot na ñu fagaru te gëwma ni loolu waroon ak jàmm waaye nañ ci gën a góorgóorlu dégg nañ seen yóbbal te nangu nañ it seen discours ndax loolu rek la ñuy xaare ci nitu diine yi dañu wax islaam wax islaam wax salaam jàmm ji muy sàkku ci euh, way politique yëpp moo tax sax ba porte parole bu xalif général des Layènes ne Ousmane Sonko di ko tooñ bu jafe-jafe amee li ko leer mooy moom ci boppam dana ko dalal ca Casamance. Seydou euh, Georges Déthié Diop euh, ñu wax ci daaka bu Medina Gounass édition 2023 ñu koy euh, waajal ci jamono ji jàppale ne sax diggante 4 jàpp 13 mars lay doon waaye ñi ngank comité d'organisation bi nag ne ñu seen xel dal nag gannaaw nguur gi am na ay engagement yu mu jëloon li ci ëpp mu ngi tàmbali di ko respecté loolu loo tax seen xel dal bokk na ci wàllum forage ak ak it euh, château d'eau euh, bu bees yoo xamante ni day tax ñu daal di yokk production bi ñeel wàllum euh, ndox mi ci retraite boobu boobule demb lañ ci doon amal ndaje ngir waajal la daaka bu Medina Gounass ci teewaayu amadu Sabar Ba benn forage bu yees dolliku ci ñett yi fa jotoon a am ngir wàllum ndox bañ a am jafe-jafe wàllum wér-gi-yaram gën nañ koo ñoŋal Senelec tamit jël nay matuwaayam ci wàllum sécurité gendarmerie def na ba pare plan de circulation am daanaka lépp yemb na ngir ñu mën a amal daaka Médina Gounass ci atum 2023 ci anam yu mucc ayib Antoine Félix Diome mooy jëriñ bi ñu dénk wàllum biir réew mi damay rafetlu bu baax li comité d'organisation bi wax ak ni mu présenté rapport am ndaxte ci tàmbali bi ba service su état bi dañu nekk seen wet rek pour def ko mais dañ ko àndandoo ak yéen xalaatandoo ko ak yéen identifier ndoo difficulté yi mais aussi apporter ndoo ci les solutions. comité d'organisation bi di rafetlu engagement yi nga xam ne ne état bi respecté na ko Hamidou Abdoul Guidé Niang moom mooy porte-parole comité bi. l'ensemble des engagements qui avaient été. Euh, bépp engagement boo xamante ni jëloon nañ ko fi daal dinañ ci euh, dellu si waat te gis nañ ni tamit jëfe nañ ko ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi daal dinañ koy jëfee dañuy wéyale liggéey bi rek te ñi am yaakaar ni engagement yi fi jël yëpp euh, daanu ko atum 1942 daaka Medina Gounass ak jotaay goo xam dañ ciy wéetal suñu borom di ci sàkku ay ñaan édition ren bi nag dinañ ko door ci ñeenti fan jàpp fukki fan ak ñeent ci weerum mars bii ñu jëm Amadou euh, Sabar ba gannaaw euh, xibaar yi di wéy gannaaw euh, ba 8h jotee ba toftal juróom benn simili. ak RFM kumpa jeex na. ñu dem ca Touba ca marché Ocass ba foofu nag euh, jaaykat ya fa nekk ni ki tey jii la ñu leen a waroon a jëlee euh, ca bërëb ba waaye nag euh, opération boobu boobule ci xibaar yu mujj yi jàpp leen ne dàq nañ ko ba jëmi jamono Baye Fall yi nag ñoo war a jiite yooyee opération teewul nag commerçant yi ca marché Ocass ñoom ñu ci ñu ci bëri ci ñoom ñu ngay tàmbali dajal seen i bagage ngir mën a génn Pape Mbaye Diaw Ablaye Ndiaye ñu fekk ko muy demante benn kantinam boo xamante ni zinc la boole ci di yab marchandise am yi ci benn saret moom nag nee na day jël ay bagaasam balaa Baye Fall yee ko fee fekk. man man place bi laa nekkoon maa moom place waaw instant yii wax dëgg yàlla maa maa ngi nii di roñ samay bagage di ko yóbbu aussi yéen a ji wax yàlla sama suñu gii laa ko jëmee nii. Serigne Modou Gueye Serigne Modou Gueye moom mi ngi yor place am ci wet gi moom nag nee na wóor na ko ne ba wutul fii mu toog dina bokk ci déguerpissement bi. ba tax moom nee na dina jël ay bagaasam waaye li ñuy sàkku rek mooy ñu wutal leen feneen foo xamante nii mën nañ faa ne ngir daan seen doole. affaire xaw naa doy waar ko ndax euh, bu ñu yëkkatee gars yi tamit amuñu fu ñu leen teg tamit day xaw a métti lool bu ma sañoon beneen lool. soxna màgget Seck jaaykatu fëgg jaay la mi ngi gaawtu nag ngir range ay marchandises moom nee na fi mu ne nii njàqare la am ndax amuñu fenn foo xamante nii. mën nañ faa yóbbu seen bagage yi gisal sama taabal jee ñii ay ëmb lañu def toog nii jaaxle rek jigéen ñi xam ne dañoo néew doole yor ay tuut tànk di dawal lu ñu yóbbu ñu wutal ñu foo xam ne dinañu fa teg rek xaka jàpp ndax mënunoo ñàkk xëy di ñëw dugub daan suñ doole ci ajuma ji nag ci la Baay Faal yi wala dégër piir benn parti ci marché Ocass jamono ji nag jaaykat yi ñu ngi koy waajal bu baax ku lekk nag yaa ngi waajal sa bopp balaa Baay Faal yi Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye euh, Diaw ñu euh, jëm ca ranch bu dolli nga xamante ni. am na beneen incendie bu fa amaat euh, fan yi bii mooy ñetteel bi euh, incendie ci lu jotul euh, ci lu matul sax weer branche bu dolli di lakk looloo tax nag ñu jéem a xayma ba xam lakk-lakk yu bëri yooyu lakk yooyu bëri ci branche de dolli li ko waral bokk na ci ñàkk moyen d'intervention ak it jafe-jafe yi ngir yegg ci branche ba ca boppam waaye it sensibilisation gi ñeel ña nekk ci branche bu dolli loolu la ki nga xamante ni moo di Samba du Sow Euh, nekk carange ba jàpp ne loolu moo waral lakk yu bari foofu le euh, carange bu dolli ñu deewlu ay kaddoom ci micro Baye Assane Diaw bu fekkee ni dans un mois am na ñetti ndaay su fekkee ni weer wu nekk ci ñu def finalement lu ci def ranch bi ñaari citerne kese la am yeneen citerne war a jógee Linguère wala jógee feneen pour dugg ci ranch yi ci yoonu rang-rang la ñuy jaar yoo xam ne deneen def lu mu bon deux heures trois heures de temps xam nga deux heures de temps su takk tàngoor bi ak ñax bu wow mi avant oto di ñëw di secourir ñëw dugg ci biir ba fekk foofu dana ma trois heures de temps loolu dana yàq lu bari ñu ngi ah, ko waxoon ci dolli nee na dana fexe goudronné la tey jaar dolli jaar Thiel jaar

nekk ni wax ci wàllum njàng mekkee njàngali mi élection de représentativité syndicale yi ñuy waajal ci weeru mars ngir natt syndicat yu jàngalekat yi gën a am doole sels nag mu ngi ci tournée bi pa nga woon ca Tambacounda ñaax jàngalekat yi eh, ci importance bi jëm ci élection yooyule eh, seen njiit di Amidou Diédhiou àdduna yi ci situation eh, ñi ñu duppee ay décisionnaire euh, décisionnaires Hamidou Diédhiou mooy secrétaire général u ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abraham Poulpouy may fàttali ni Tambacounda bu ñu toll tey dafa bokk ci suñu tournée nationale ñu amal ko fan yu yàgg ba léegi tey ñu ñëw fi Tambacounda dem nemmeeku jàngalekat yi fekk si leen seen école waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom moo ajoo ci wàllum élection yu ñuy waajal yu ñu dëlmal entre le 6 et le 13 mars. waaw ku organiser élection électronique war nga mën a jël matuwaay yu bëri parce que boo seetloo ba bu ñu commencé vote test bi am na jafe-jafe yu bëri yu ñu ciy seetlu jàngalekat dina bëgg a voter nga dem mais nga am jafe ci wàllu mot de passe bi kon jot na ñu bàyyi xel ci loolu bi ci des serveur boo xam ne moom moo ñu mën a permettre ñu voter maanaam plateforme bi ñu gën a mën a yokk capacité am ñu xam ne jàngalekat yi dañuy voté andoo kuy voté loo cent mille jàngalekat lu ko ëpp war nga mën a jël matuwaay waaye également ñu permettre décentraliser li nga xamante moom mooy gestion ba depuis inscription ba ba ci phase test ba kenn ku nekk foo nekk soo bëggee voté doo am jafe-jafe loolu moo tax bañ koy xeex dañu neewoon dañu fexe ba ñu dugal week-end ci période bu ñuy voté pour mun a permettre kenn ku nekk ko xam ne nekk nga ci zone boo xam ne amul réseau nga mën a bu week-end jotee jege mën a voté ji am sa temps sa opportunité accompli li nga xam ne mooy sa devoir. Amidou Diedhiou di secrétaire général bu CELS ñu wax ci juróom-ñetteelu édition salon bu ñu jagleel wàllum euh, batiment Euh, tàmbali nañ ko nag euh, démb ki lancé travaux yi di euh, jëwrin gi ñu dénk wàllum commerce ak petite ak moyenne entreprise fële ci centre exposition bu ñaajo atum ren bi nag salon boobule dañ ko booleek yeneen i salon mu di salon de l'énergie ak salon bi ñu jagleel wàllum climatisation ak salon automobile yëpp la ñu dajalee ndaw mu doon benn téeméer ak juróom-ñaar fukki exposant nag ña nga fa ku ci nekk andi li nga xamante ni daal moom nga yaakaar ne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 ngir secours yi tey nag la ñuy ñibbisi tey ci ngoon bu 19h30 euh, jotee euh, ñu jàpp ne nag euh, senegal jot na dajale lu toll ci juróom fukki million ci suñu koppar jëm ci ndimbal li ñeel ñalooru ci séisme googa ca Turquie démb la ñu doon def vente aux enchères ci noonu kii di Youssou Ndour jël na mbubu cosaanam boo xamante ni dañu ko da ko jaayee lu ëpp juróom-ñetti million El Hadj Diouf moom mayoom la jël. Euh, mayo boo xamante ni jaayee na ko euh, juróomi million ci sunu koppar Abraham euh, Abdourahmane Diallo teewe na vente aux enchères boobu. merci le Sénégal jërëjëf. su Turquie bu nekk fii ci Sénégal rafetlu taxawaay bi nga xam ne sapeur pompier sénégalais yi amal nañ ko ci dëkk bi ñu woowee Hatay ci Turquie. les sapeurs pompiers sont partis ils étaient dans la ville la plus touchée qui est la ville de Hatay ils vont revenir demain ils seront ici vers nous on sera là-bas j'espère que vous serez nombreux à les accueillir parce que ce sont des héros. Atis Nour Sañman bët yaa ngi fees dëll ak i rongoñ di rafetlu ñi nga xam ni teew nañu ci ambassade bi ginnaaw bi nga seeni alal ak seeni mën-mën ngir dimbale waa Turquie. Le Sénégal a été un exemple formidable. Le monde entier est à de nous, mais le Sénégal a été vraiment très spécial depuis le début. Youssou Ndour mu ngi woon foofu moom sax benn ci ay yëre wolofam la ñu daal di jaay lu toll ak huit millions cinq cent mille francs CFA. ñu jóg ñëw bokk ak ñoom naqar bi aussi àndandoo ak ñoom ci élan de solidarité bi bi ñuy jundu ci Sénégal boo xamee ni que état moo ko jiite bi état pare gis ngeen euh, sang bu tedd bi sëñ taxa li mu def artistes yi sportifs yi tamit ñëpp jóg pour lu mel nii nga xamee ni que moom moo dal Turquie ñu sentir ci loxo Sénégal bu mag. El Hadj moom it indi mayoom bi nga xam ni moom la soloon ci coupe du monde 2002 diggante Sénégal ak Turquie yére boobu sax juróomi million lañ ko fa jaaye c'est vrai que maillot bi bëggoon naa ko pour samay doom wala sumay sitaat sat mais nag am na lu gën am importance tey jii loolu moo di dund at dee ndax tey jii am na ñu si ñàkk seen bakkan ñooñu la ñuy defal tey jii vente aux enchères bi lu ci xaw tamit si ñoom la jëm. leve de fonds bi nga xam ni Turquie amal na ko tax na ba ñu am lu ëpp juróom fukki junni million sunu koppar. Abdourahmane Diallo Youssou Ndour mu ngi koy wax léegi intervention am euh, ku tedd ki xalif général moom itam ba mu déggee mbir mi ci la génnee lu toll ci euh, téeméeri million ngir jàppale ku ñuy loru euh, ci séisme googa ca Turquie. sport bi Cheikh Tidiane Diagne sama wet Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. dañu koy dal di door rek kii di Aliou Cissé di sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal. ni ki dem nag euh, ma woon euh, ca congrès bu AIPS Afrique euh, di organiser fii nii ci ndakaaru AIPS Afrique nag bu ngeen ko déggee moo di kuréel bi nga xamante ni dafa daal di kon bokk làq journaliste yi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu tàggat yaram ci Afrique moom nag ba mu fa demee animé fa benn panel la mu yëkkati ci ay kàddu jëmale ko ci équipe nationale ni la daal tey la gën a dogu ngir mën a kon bokk wéyal liggéeyam rax ci dolli tamit ma ngay bàyyi xel lii di jour lukko yi rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo jot a gagné lii manifestation bi ñu amal la fan yi lay weesu foofu la ci Algérie ñu déglu ko Aliou Cissé ci micro Youssou Bodian mais di leen félicité di félicité entraîneur bi nga xam ne sama naataango la Pape Thiaw yoo xam ne passé nañu ay moment yoo xam ne yu am solo la donc suis vraiment content que tey euh, mu écrire moom tam turam ci histoire du football sénégalais en gagnant CHAN boobu mais mën naa wax ni que dara étonné wu ma parce que tamit préparation CHAN bi depuis un an un an yu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 Afrique ñoom nag ñuy daal di amal seen assemblée générale élective nit ki ëllëg samedi fii nii ci Ndakaaru ñaari candidat nag ñoom ñoo ci gën a fës di Abdoulaye Thiam bu Sénégal daal di diriger association nationale de la presse sportive ak itam doomu Maroc bi di murat Mourat Moutwakil moom sax euh, yëkkati na ay kàddu euh, ñu déglu ko gannaaw ba ñu déggee démb fii nii kii di Abdoulaye Thiam. j'ai été vice-président pendant un certain temps. nekkoon naa nag vice-président ci ay diiri jamono waaye tamit euh, pour jëlaat lii di succession bi tamit du dara nag ngir fexe rek gën a sàmm ak ñoŋal lii di intérêt yi euh, presse euh, sportive bu Afrique bi kenn ku nekk daal di def lu mu ci mën euh, moo xam ci réew réewam ngir yëf yi daal di gën a mucc ayib daal di jaar yoon ndax liñ fi boole nu ñëpp du dara du xëccoo du dara bu dee ci élection la tamit ci anam gi mu gën a rafetee rek leen koy def du course du xëccoo bu ñaaw lépp ngir fexe ba intérêt association bi ak journaliste yi kenn ku ne mën koo defendre xëj na ñaar lañu ak Abdoulaye Thiam waaye muy man mbaa muy moom ku ci falu rek da ngay fexe nag yi yi dal dee jaaroo ndax am na liggéey bu rëy bu ñuy xaar Abdoulaye nag bu faloo dama koy encouragé daal dee continuer man tamit ci sama yoon man tamit candidat la pour euh, poste vice présidence bi donc lu ci mënti am dañuy joxante loxo rek ànd liggéey ngir intérêt yi association bi africaine voilà mi ngi noonu Abdoulaye am euh, di doomu Sénégal kon boog euh, ñu koy ñaanal euh, yoon boobu nga xam ne moom la sumb yàlla defal ko ci ndam ndax ndamu Sénégal ñu daal di waxtaane wàllu basketball ci wàllu góor ñi ak fenêtre bu mujj ci wàllu éliminatoire coupe du monde gi ñu koy daal di amal euh, ca Angola ak itam euh, ca Algérie euh, plutôt ak itam ca Égypte ca Alexandrie foofu la groupe Sénégal daal di nekk di groupe F Sénégal nag moom dina daal di soobu ci gile jongante tey jii ci bu tisbaar jote 14h30 diggante mag Soudan du Sud waaye laata loolu Cameroun dana tase ak ñi di waa République démocratique du Congo ci bu mu di jotee Tunisie moom dina daal di tase ak Égypte ci bu 17h jotee. bu loolu weesoo Barthélemy ñu daal di kon bokk waxtaane wàllu Ligue Europa niki démb nag lañ doon jeexal lii di seizième de finale yi xam nañ nag ñu jot a ci wàllu huitième de finale waaye jàngat bi moo di FC Barcelone moom mujj naa toog ci diggante mag euh, ñii di waa Manchester United ci xëcc bu ñu doon amal niki démb Manchester United ci stade am Old Trafford dafa daal di daan FC Barcelone ñaari bal ci benn donte sax ñoom ñoo njëkk a dugal wa FC Barcelone Lewandowski moo njëkk dugal laata eh, kii di Fred di égaliser doomu Brésil googule keneen doomu Brésil daal di ko feelu du Antony ci mujjantal eh, ñoom ñoo mujj am ndam ñaari bal eh, ci benn bu ñu ko méngaleeg match aller bi nag foofule ca Camp Nou dañoo defoon match nul foofule ci Espagne deux buts partout Bayer Leverkusen moom dafa dal di daan ay AS Monaco bu Krépin Diatta ak itam Ismail Jacobs gannaaw tir au but score final bi nag 2-2 la woon 3-2 plutôt ca match aller ba jàppale ni ci googu la jogante nga xam te ñu ko doon amal foofee euh, ca euh, principauté Krépin Diatta euh, jot na euh, joué ci match bi ba mu dal di jee Ismail Jakobs moom itam jot a euh, dugg laata match bi di jeex ñu dal di wax itam ci beneen équipe bu France moo di Rennes moom itam dafa dal di kon bokk ñàkk ni ki démb diggante mag Juventus bu Turin ñetti bal ci dara Angel Di Maria moo fa dal di jaar dugal ñetti but beneen équipe bu France itam nga xam te ne moom itam toog na moo di Rennes diggante mag ñii di waa Shakhtar Donetsk di équipe bu Ukraine na ñetti équipe France yëpp daal di teewoon ci kooku les compétitions daal di nañu toog FC Séville moom euh, dafa mujj am ndam euh, ci diggante mag ñi di waa PSV Eindhoven donte dafa daal di ñàkk ni ki démb ñaari bal ci dara ca match aller bi nag doomu Espagne yi si la ñu defoon différence ba seen dëkk ñetti bal ci dara seen diggante ak doomu Pays-Bas yooyu la di PSV Eindhoven. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñaar fukki simili ak ñett gannaaw juróom-ñetti waxtu nu dalal Ana Rocha ci xibaaru aada yi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi tàmbale ko ak tiis bi dal ci kaw cinéma bu euh, senegal Safi fay nekkoon jigéen bu njëkk yëngu ci wàllu cinéma fii ci euh, senegal mu génn àdduna euh, guddik Safi nekkoon jigéen bu njëkk yëngu ci wàllu cinéma fii ci Sénégal mu génn àdduna guddik àllarba ca Paris fi mu doon dëkk Safi fay nag filmam bu njëkk mu ngi koy def atum 1972 tuddee ko la La Passante mu nekkoon benn film court métrage CD Johnny Spencer Diop nekkoon kenn ku ko jege lool. jigéen joo xam ni li naan jigéen ju mën góor. waaw parce que ca jamonoom wane na ko bu baax a baax te xale yu jigéen yu bari ci moom lañ xool. gëstu ci ay doxam ci ay tànkam gëstu ci lu bari ci moom ba ni ki ëllëg euh, samedi lañuy ñuy doo ñaar fukk ak juróom yi édition euh, FESPACO laata loolu nag ministre de la culture euh, du Sénégal am na kàddu yu mu yëkkati ci ab interview di xamle ni ren ji fas yéene na taxawal édition bu njëkk festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal FICAS mu festival boo xam ne war na am ci ñeenti diwaan war taxawal weeru juin gi ñu euh, dëgmal waaye nag ci gis-gisu euh, taskatu xibaar bi di Baba Diop nekk itam critique de cinéma idée bi war nañ ko xoolaat. ah loolu lu man lu ma jaaxal la. bu ma liiree déclaration dama ni waaw ñun amoon nañu lu nga xamee ni cinéaste Afrique yëpp dañu dañ daan ñëw euh, maanaam daal amoon na tur. Annette Mbaye moom moo ko sampoon bi mu demee ba nga xame ni def na si daal fukki at wala fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom-ñaar mu ne ministère bi mu jox naa leen ko léegi ngeen continuer waat parce que dafa doon magal mi ngi magal euh, nag ñu def fi effectivement ñaari édition euh, yooyu su amee ñaar wala ñetti édition su amee euh, bu mujj bile ñëpp rafetoon nañ ko rafetloon nañ ko Euh, gis nañu ñi fi ñëwoon et su ma de soo demee festival yi yeneen festival yi ku nekk def naa la waaw Rissida ak fan la nekk Rissida ak fan la toll. nga xam ne kooku am na tur. Euh, loolu li ma si jaaxal mooy soo amee lu nga xamee ne am na solo ba pare nga ne teg ka fa naan da ngay wutiwaat da ngay tabaxaat lu bees euh, lu ma jaaxal la ce kii déjà am na tur ñëpp xamal nañ ko ko loolu kañ li nga mën def maanaam nga dooleel ko doole. parce que Risida du festival rek. waxtaan gi ni mu gën a yaatu ni ki ëllëg samedi baaba Diop mooy doon ganuk seen magazine bi ñu jégleel aada ci RFM xalam di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Malaysia UMO Soumari.com ak savon de Marseille Alfi ñoo leen may li ci yéenekaay yi ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kaa def kaa waa parti démocratique Sénégal des Karim Wade moom la l'observateur xëy di kaa ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ci jamono ji ñuy waajalee élection présidentielle yi ci réew mi candidat yu bari ci leader politique yi di yëglu waa parti démocratique Sénégal ñoom seen candidat bi ñu tànn taamu ko ne moo leen di taxawal Wade ak waa këram ñu tegaat loxo ci réew mi ndax bala nga ne naan nekk fa yéenekaay bi gis ne parti démocratique Sénégal kaa garaaw la bu nekk ci koma te seeni borom buñ ci jugul mën nañ ci am yeddange Ousmane Sonko mi ñu doon yedd démb ca Yoff xibaar bi moo nekk ci xët mu njëkku la Sénégal journal bi dañu wax ne njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko ma nga woon ca Yoff démb ci kaw ngan gu tënk woon ci wote Mame Seydina Limamou Laye bañ fa doon ca yof vox populi ni mu ko tuddee mooy les vérités du porte-parole des Layènes lise ko feelu ko moom it ba bind ci xët njëkk ne Mamadou Lamine Lay wax na ay dëggam kii di Ousmane Sonko nee na ko am réew di su ko wut ci fitna baa di wàcc ci mbedd yi lépp ci mbañ gàcce lay leere na ku nekk ci yéen saxal jàmm bu ko defee saw ñooñ bàyyi ba woote jot ñu woteel la Walf Quotidien gis ne kilifa diine yi ñoo ngi dëkkee di wax ak way politiciens yi waaye liñ leen di wax dafay mel nopp ndeyjoor bi di génne ci nopp càmmoñ bi tax ba ñoom kilifa diine yi ci réew mi seen message bi ñuy wax way politiciens yi jàllul Walf Quotidien mi ngi ñu koy càmbaral président bu Samba Sall maire bu Dabali ni wax ji wax ji moo di Ousmane Sonko moo joxul cër benn kilifa dina ci réew mi ay pexem ay projet moom Ousmane Sonko moo di yàq Sénégal te loolee tuut na ci ndax réew mu mel ne ay kilifa yu mag te sell tëdd fi réew mu ni mel ku ko bëgg yàq yaa yàqu tribune nañu te borom mouvement Macky encore yamu fa moom nee na waxul waxi candidature président Macky Sall ci élection présidentielle 2024 yi li mu bëgg nee na mooy ñu ànd ak Macky Sall ba ndax fi réew mi toll agent bi mu fi indi jëm 2035 ay jeexi jaaxaaki xiini mi yu dul jeex bés bi le jour gis na ne moo am ci élection présidentielle yi ñu jëm ndax dara leeragu ci li leer ba leer tit bi nee nañu moo di opposition bi Macky Sall li mu bëgg mooy nelawal leen ak waxi troisième mandat ñu nekk cay wax ba fàtte li coowal parrainage beeg coowal code électoral bi député Yewwi Askan Wi mer nañu lool journal Life moo ko bind ci xëtamu njëkk njëkk ba dañu le nañu ki ñu ko jiñ nag mooy président assemblée nationale Amadou Mame Diop nee nañu ni mu jiite assemblée nationale bi baaxul santul yàlla ñoom député yooyee fare ci langu Yewwi Askan Wi bi nee nañu ginnaaw toogaanu ñaxtu bi ñu bëggoon def ci buntu assemblée nationale préfet aayi leen ko terewul def nañu ko bañ ci noppee toftal nañ ci ab jonok taskatu xabaar yi fa doon jéebaane ni assemblée nationale di doxe ŋàññi ni nañu dem nañu ne woon yóbbu ko garde à vue ko ci sécurité urbaine moom Azoura Fall dëgg-dëgg di Assane Gueye yéenekaay bi nee nañu mooy ki fi defoon ab vidéo di ca wax ne bés bu fi ab procès public amee ci diggante Adji ak Ousmane Sonko moom dana rey Adji Sarr journal bi nee nañu beneen mandat dépôt mi ngi koy yott CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Malaysia UMO Soumari.com ak savon de Marseille Alfi ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi yéen it ngeen jëf fi la ñuy yëm ak yenn ci xibaar yi dafa pàttali ci li ci gënoon fës kàdduy xalifu laayeen yi jëmee ci Ousmane Sonko nee na ko réew mi dal ak jàmm la soxla euh, kenn warul yee na ci mim réew message la boobu nga xamante ni daal ci njiital Pastef la jaare waaye mbooleem woy politiciens yi ci réew mi lay waxal. daaka bu Medina Gounass ñi nga comité d'organisation bi ne kontaan nañu gannaaw nguur gi respecté na engagement yi mu jëloon yëpp daaka bi nag ci weeru mars lañu koy amal. jaaykat ya ca marché Ocass bu Touba tey la ñu leen fa waroon a jëlee waaye dàq nañ ko ba jëmi jamono Baye Fall yi nag ñoom ñoo war a jiite yooyee opération euh, suuf sa yëngu ca sa sapeur euh, pompier yu Sénégal ya ñu fa yebaloon toll nañu ci fanweer euh, yebal leen ci dëkk bi ñuy wax ataay ngir secours yi tey ci ngoon lañuy ñibbisi fii ci Sénégal bu 19h jotee Sénégal nag jot naa dajale lu toll ci juróom fukki million jëm ci ndimbal li ñeel. ñaloru ci séisme googa ca euh, Turquie mu doonoon xibaar yi Barthélémy Ngom doon leen ko jukkil Abdou Thiam ci machine bi